jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di ndokkel di leen ñaanal jàmm euh, di nuyu àddina wërngal euh, këpp tey nag ñu ànd ak naqar tiis ci ki nga xam ne moo di alhaaji Mamour Diop mi nga xam ne moo moo alhaaji nga xam ne moo jiite mboolem police bu yeew fii ci bureau bi ci diwaanu Gàmbi moo ñàkk bakkanam bis ni ki démb jamono ji nag ñoo ngi fii ci diwaanu Sinthiou alhaaji ba tey foo sànni mbatt mu takk adduna bi yëpp ànd ak naqar ak tiis waaye ñëpp bokk benn kàddu muy kàddu yoo xam ne yu ama am solo la waaye mu doon kàddu yi jafe ci koo xam ne ndombal tànk la bu xam ne ñëpp ràññe nañ ko waaye ñëpp bokk benn baat bi ah mu doon loo xam ne mbokk yi doy na waar lool waaye di ko ñaanal suñu borom bi xaare ko àjjana jégal ko ay bàkkaram seen doomu ndey Moussa Diéne jërë ngeen jëf